wa alzamoo taqale nañu ida idaafatan ak laaf ila jumali laf aali warul laaf jumlay lisim amma qawluhu taala ida shamsu kuwirat ila axirihi kooku fa kuwirat maana dafa firi beneen kuwirat dafa mel ni dafa ni ida kuwirati shamsu ba ñu xatafee booba ñu andi kuwirat wala yujmau bayna al iwadi wal muawad ida shamsu kuwirat waaye nax yooyu nanguwuñu ni shamsu day mubtad kuwirat di xaara ida laaf jumlay feen te jumlay jumlay lisim loolu lañuy la ñuy bañ fokk ñu taawil ko ni ida kuwirati shams kuwirat maanaam ni ki tey hun na nga yomb yow ida talaa su kawe kawe loo sam sa mu ngi junj waxu arab ida azza axuuka fa hun ida ida talaa maanaam bu fekkee sa waay moom day ngan ngandulu di kawe kawelu yow hun yombal nooyal yow suufe suufe ida shahid bi mooy ida laaf na jumlay itala li mufhim isnayni muarrafin bila tafarruqin udifa kilta wa kila dafa doon lim lisim yi nga xam ne dañuy dëkkoo laafe kilta ak kilaa ci lañu nee na nag te ñoom waxoon nañu ca njël benn damir la ñuy laaf mën nañoo laaf maanaam bu ñu bëggee ñu yégal leen ci tasniya laa wax amma ba ñuy laaf lisim zahir mën nañu ko waaye bu boobaa maqsoor la ñu leen di jàppe lu lu mën a xamle ñaar muarrafin tey maarifa bila tafarruqin xam mën naa xam le ñaar bila tafarruqin ci lu dul tàqalee leen udifa dégg nga dégg nga la ñuy laafal kilta ak kilaa la ñu leen di tàggal toujours mu fimis nay ni la benn muy tas tasniye ci boppam ni ki kiltal jannatay ni wala muy damiru ñaar ni ki kilaahuma wala damir bu mën a jamtalu ñaar ni ki kilaana ganiyun an axihi xayaatahu wa nahnu ida mitna ashaddu taganiya kilaa naa naa mën nay yàgg mën nay ñaari nit dong mën nay mbooloo waaye mën nay ñaari tam kon mufhimis nay ni la nas la ca ni ki tasniya la wala huma wala mushtarak la ca ni ki naa loolu kila kilaa kiltaa daal lu mën a déggle ñaar tey maarifa la ñu koy laafal muy damir muy lismu zahir wala tudif li mufradin muarrafi ayan wa in karartaha fa adif ayu it ci lisim yi dëkkee laafe la wala tudif bul laaf ayan li mufradin muarraf kenn du ko def kenn du ne ayu zaydin ah dana ci dana nu ci dellu si nag wa in kara loolu maalam tukarrirha soo ko takraarul wala nga yéene ci ajza ni ki mu ne aw tanwil ajza yooyu de dana tax ayu ga mën koo laafal mufrad bi maarifa amma nakira mën nga ko koo laafal mutlaqan ayu rajulin mën nga ko wax amma ayu zaydin kooku bu ko wax dégg nga wa in karartaha soo ko dee takraar nag fa adif mën nga ayu zaydin wa ayu amrin ni ki wala in laqituka xaadiyayni la taalaman ayi wa ayuka farisul ahsaabi ayi wa ayuka foofu laaf na mufrad muy maarifa damiru mutakallim ak damiru muxaatab la ayu laaf nee na waaye takraar gi moo tax maalam tukarrirha wa in takarar wa in karartaha fa adif laafalal ayu zaydin wa ayu amrin aw tanwi la ja wala nga xam ne jus uya nga cër ya nga jublu ci saki boo ne ayu zaydin ahsanu fa yu jaabu aynuhu wala sinnuhu wala nangam ayu ajza i zaydin maana loolu moom mën nga ne ayu zaydin maana ban ci ay cëram su fekkee sa ayu ji ayu zaydin ji ajza u zaydin nga yéene loolu mën na nekk ñu di la tontoo cër sàngam wax ayu nag dégg nga dana nekk ismu mawsul dana nekk ismu listifham dana nekk ismu chart te yooyu yëpp bu dul ayu dañu koy binaal ndax liggéeyu araf la taxawe waaye ayu fu mu mën dem dañu koy leeral ndaxte moom niru xarafam dégg nga ak ismiyaam dafa dëgër ndax dégg nga dëkkoo gi mu dëkkoo taqoo laaf faw te laaf min xawaasil asma ku ko taqoo te du taqalikoog moom ak lisimam day dëgër su demee su niru araf boole ca ndax li mu dikkee chart mbaa listifhaam wala yooyu du tere rek du ko mën a teexañ cosaanam liy leeraam wax su san jegleel bil maarifa ci may maarifa ayan ay xaala kaw nii mawsulatan asmu ayu bu dee ismu mawsul maarifa rek lay laaf wa bil aksi wa sifatu ayu jëy sifa bil aksi nee naa la ayu su fekkee ne da nga koo def sifa kon safaanu loolu nakira rek lay laaf jaa raju jaa rajulun ayu rajulin wala nga def ko xaal jaa zaydun aya rajulin xaala kaw nihi te xaal nakira lay doon wa in takun bu ayu nekkee nag di charte wala liste nee naa la ayu ñeenti façon la bu mawsuul du laaf lu dul maarifa bu bu sifa du naaf laaf lu dul nakira wa in takun bu nekkee chartan di bu chart ba wala bu listifham ba fa fa kamil matalal biha ak moom alkalaama wax ja ci sa laaf mutlaqan su yeboo loo ko laafal maarifa ak nakira yëpp lay mën ayu listifham mën naa dégg nga ayu rajulin jaaka ayu rijaali jaaka fa akrimuhu su dee chart ayu rajulin jaaka fa akrimuhu wala ayu rijaali jaaka fa akrimuhu su dee listifham ayu rajulin jaa ban waaye ñëw ayu rijaali jaa kan ci góor yi moo ñëw kon fa kamilil kama idafata biha mutlaqan su yeboo lu mu laaf wa alzamu idafatan ladun fajar wa nasbu qudwatin biha anhum nadar wa alzamu taqale nañu ladun idafa moom it yi laafe faaw la fa jarra muy jar toujours waaye nag wa nadara néew na anhum jële ci ñoom nasbu qudwatin nasabu baatu qudwatin wa nasbu xudwatin na nasabu benn lafz boobu xudwatin biha ak ladun na dara néew na anhum mbir mu ñu koy jëlee ci arab ya nekk wa ma ziltu wa ma zala muhji muhri masjaral kalbi minhumu ladun xudwatan xatta danat li xurubi ladun xudwatan baatu xudwatu rek la ñu dégg arab man ko nasab ak ladun aywa xëy na day ànd ak taawil la doon an kaanati zamanu xudwataan am na yi taqoo laa fi ba tey beneen lisim bu tudd maa zaraf la wa maa maa fiha qalilun wa maa baatu mata maa it yi dëkki laaf la moom nag maa bi taskini qalilun fiha danañu ko wax jaa zaydun maa amrin waaye loolu bariwu ca maa moo bare wa nuqil toxaleef na ca ci maa fathun fata ñu naan maal qawmi wa kasrun ak kasra mail qawmi li sukoonin pour sukoon yettasil gu ca jog su ca sukoon jokkee mën nañu ni maal qawmi su boobaa maa fataaga ak nasab la kat bu dee kasra nag liltiqaai saakinayni moo tax ñu naan mail qawmi wadmum binaan gayra nin adam tama lahu udifa naawiyan ma udima qablu ka gayru baadu xasbu awalu wa doonu waljihaadu aydan wa alu mu ni wad mum binaalal dàmmal binaa an ci binaa xayran baatu xayr in adimta su fekkee ñàkk nga xadaf nga maa udifa lahu lañ ko daan laafal naaw yan bi fekk yaa nga fa yéene nag maanaam maa udima maanaam mudaaf ilayhima yaa ngi ko fa yéene waaye nekkatu fa xadaf nga ko bu boobaa foofu lañ koy binaal ci dàmm ci boobu barab amma bu laafee lafzan dañu koy nasab dégg nga aywa su fekkee ni maanaam lu ko lu liraab ja jox daal xayru moom bu laafee lu liraab ja laaj dañ koy jox maanaam mën na doon faayil ni ki maa jaa a xayru zeydin mën na doon mafool maa raaytu xayra zeydin du dëgg bu dee ci setti du dëgg su fekkee nag da nga ne xabattu asharatan laa xayru maanaa mu daaf ilayhi ma xadaf nga ko maanaa nga fa yéene waaye xusuusu benn lafz nag yéene woo ko fa waaye daal maanaam idaafa nga yéene nga ko fa taqdir nga ko fa waaye xusuusu lafz sàngam la ñu fi xadafe moom kooku bokku ca kon boobu dañ koy binaal ci dam dana mën nañu leen mën nañu xadaf mudaaf ilayhima soo fa jubloo lafz ba bàyyi ko ca xaraka liraab ga mu yoroon waaye bul ko tanwin lu dëgg aywa kon nag boobu benn istimaala nga wala nga yéene fa maanaama yéene woo fa lafz ba bàyyi binaal ko ci dàmm wala nga yéene ca laftu mudaaf ba kon bàyyil xaraka ga na mu melo woon wala yéene woo ca daraati benn laafi aslan kon nasab ko loolu nag mu ni qablu ka xayru lillahi al amru min ba qablu wa min baadu bu fi am na ñu wax min qabli wa min baadi booba laftu mudaaf ilayhima la ñu yéene benn bi ngi ne min qablu nag maanaa idaafa ga lañ yéene waaye laa xusuusu laf da dëgg mën nga koo nasab bu laafee min qablihi qablahu wa baadahu wala min qablihi wa baad aywa wala nga dagg ko ci laafe aslan nga di ko nasab qablan dégg nga wa kuntu qablan akaadu axassu bil maa il qablu nag ka xayru moo xayru ñooyam ci loolu ak baadu ak xasbu ak awalu ak doonu wal jihaatu aydan wa alu maanaam xasboog yooyu jubluwuñu ni ni ngay def awlu ci di laaf ko tudd kii ba ak yooyu yëpp déedéet waaye daal yuy dëkkee laaf faaw lañu amma xabloog baadu nag yooyu anam yooyu nu waxoon mën nga ko ci ah xasbu xabattu asaratan xasbu maanaa faqat wala awwalu su fekkee mudaaf ilayhim daam nga ko moom moom li nga defoon ci xablu mën nga ko mën nga ni awalan awalan ba nga daggee mudaaf ya wala awalu ba nga yéenee mudaaf ilayhim di ko daam wala min awali su fekkee lafzu mudaaf ba nga fa yéene moom mën na ko addoonu wal jihaadu maanaa ak asmaul jihaad yi fawqu taxtu yooyu wa alu ak alu dégg nga alu bi maanaa bu fekkee ala mum pakaan ay ca kaw ma nga dikkal leen wa ataytu naxwa bani ulay kulaybin min alu maanaa ca fa leen féete kaw makaan xaas la maarifa la amma bu fekkee da nga koo nakiraal da nga koy delloo cosaan jar ci la waxu imrul qays kajul moo di saxrin xattahu saylu min ali da koo jar ndax kooku nakira la waaye alu ay min fawqihim ataytu naxwa bani kulaybin min alu ay min fawqihim kooku maarifa la wa aaraboo nasban liraab nañu qablan wa ma zukira min baadihi waaye du yëpp yëpp waxoon naa la ko ay aloog yooyu bokk ci wa aaraboo nasab nañu liraab nañu qablu qablan wa ma zukira ak yi ñu tudd min baadi ci gannaawam danañu leen liraab nasban ci nasab ida ma nukkira bu ñu leen nakiraalee nga xam ne laafatuñ ca dara qablan wa baadan wa ma yali lmudaafa yaati xalafa anhu fi liraabi ida ma xusib wa ma yali liraaba la doon topp ci màndargam liraab ah asta wa ma yali lmudaafa la doon topp ci mudaaf ilayhi mudaaf te loola mooy mudaaf ilayhi kooku yaati dana dikk xalafan di remplace anhu ci mudaaf ida ma xusifa bu ñu ko xadafee mu remplacé ko ci liraab wasalil xaryata ah maanaa wasal ahlal xaryati xaryati mudaaf ilayhi la woon ba ñu xadafee mudaaf mi mu remplacé ko mu doon mafool wasal wasalil xaryata allati kunna fiha ah wa rubbama jarru alladi abqaw kama qad kaana qabla xadfi ma taqaddama lakin بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد أطيب وربما جروا ليك ليك نجر الذي أبقوا لا نفدسل مضاف إليه ليلي نبايك فجاركو كما قد كان نمونيكيون قبل حذف ما تقدم لجك بنيو جيتو لدولو تموي مضاف ci boppam ñu bàyyi fa mudaaf ilayhi ma desal ko fa na mu nekke woon ci ak jaram lakin waaye loolu du amee lu dul bi charti an yakoona chartu na nekk maa xasifa mudaaf ma ñu dagg na nekk mumaasilan di yem ak li ma qad utifa alayhi ñeel mi mudaaf moo xam dañ ko caa ataf du dëgg loolu moo koy def niki akulla mri'in taxsibiina mra'an wa naarin tawaqadu bil leyli na fi leyli naara wa naarin jooju ana lu ko jar maanaa akulla mri'in wa kulla naarin mu nee na kon wa naarin jooju lu ko daganal kulla mri'in ji nga tuddoon moom ataf ko ca nag nga dani a kulla mri'in wa kulla naarin nga ni kulla mri'in wa naarin nan ida loolu loolooy charte ba an yakuna bu nekkee maa xosifa la ñu xadaf mu maasilan di yem ak li ma xat otifaada ñeel la ñu ko atafoon moom it kulla la woon lu doon taqdir a kulla mri'in taxsibina imra'an wa kulla naarin tawaqadu fi layli nga defee ko naaran muy safara dëgg-dëgg maanaam wa yuxdafu zaani fa yabqa al awalu ka xaalihi ida bihi yattasilu moom it bi charti atfin wa idaafatin ila misli alladi lahu adafta al awala leneen a ngoog dafa bëgg la wax ni mudaaf ilayhi des na ko xadaf léeg-léeg mudaaf ma ñu bàyyi ko na mu meloon ndax chartu mudaaf bu fekkee amoon na tanwin da nga koy dindi su fekkoon na am na noonu tës ni yaag gu jamu da nga leen di dindi nee na nag léeg-léeg ñu xadaf mudaaf ilayhi te bàyyi ko mu ni ñogg noona ak xaraka liraaba mag yëpp ak ñàkk tanwiinam mooy wa yuxsafu danañu xadaf ak saani ku ñaareel mudaaf ilay fa yabqaa di des la walu mudaaf ma ka xaalihi na mu nekke woon ci ñàkk tanwiin ak ñàkk nun ida yattasilu bi tàng ya muy jokk ca moom na mu meloon nga ba ko noona loolu nag bi charti atfin chartu dafay fekk nga ataf ca beneen wa idaafatin ak laaf la nga ca ataf ila misli alladi jëm ci lu yem ak mudaaf ma nga xam ni adaftahu la adaftahu la wala moom nga laafaloon bu jëkk ba misaalam yaa man ra'a aaridan yusarru bihi bayna ziraai wa jabhati l asadi ah yow miy gis xiin woo xam ne ma ngi ko cay kontaan bu nekk bayna ziraai l asadi wa jabhati l asad looloo doon cosaa cosaan nga daal di xadaf mudaaf ilayhima ca ziraay ziraayil asadi nga xadaf asadi nga ni bayna ziraay wa jabhatil asadi yaa ngi ci ataf koo xam ne moom tuddal nga ko mu daafam lu doon cosaan bayna ziraayil asadi wa jabhatil asadi ah nee na looloy sart ba bi sarti atfin fokk da nga cay laaf beneen mu daaf wa idaafatin ak fekk nga laafal lu ñaareel la ila misli lazi jëm ci baat bu yem ak ba nga xam ni adafta lahu la wala moom nga laafaloon bu njëkk ba baatu asadi nga nga laafaloon bu njëkk bi dégg nga fasla mudaafin shibhi fiilin ma nasab mafulan aw zarfan ajis wa lam yucab faslu yaminin wa tiraaran wujida bi ajnabiyin aw bi naatin aw nida nee na ajis daganalal fasla mudaafin taqlee mudaaf shibhi fiilin mu niroog fiil ndax dafa amee moo fin la bokk istiqaaq xëy na masdar la dégg nga bu dee boo ko laafalee nee na dagan na mu dox seen diggante fasale seen diggante mu daaf maag mu daaw ilayhi maa li nga xam ne nasaba mu daaf maa ko nasab ndax mu daaf mi dafa niroog feel mën na nasab mafool am na mu bëggoon mu li mu laafoon nag nga jël mafool mu daaf mi doxale ko seen diggante dégg nga muy xaala kaw nihi mafoolan mooy la mu nasab mbaa muy zarfan mën nga jël zaraf soo xam ne mu daaf mee ko nasab wala mafool bihi boo xam ne mu daaf mee ko nasab tàqalee ko diggante mu daaf ak mu daaf alay mën na nekk dégg nga kooku dégg nga niki qiraatu ibnu amir wa kadalika zayyana li kathirin min al mushrikina zuyyina li kathiri mushrikina qatlu awlaadahum shurakaa'ihim rafetalal nañu mushrikiin qatlu awlaadahum maf'ulu qatlu shurakaa'ihim fa inna shurakaa'ahum yaamuruhum bi qatlil awlaadi ñuy rey seeni doom fil wa'di nee na lu bari ci mushrikiina yi zuyyina rafetalal na ñeel leen seytaane lu ñu leen rafetalal qatlu shurakaihim rey gu seen shuraka ya rey awlaadahum seeni doom awlaadahum mooy mafoolu qatlu nga doxale ko diggante boobu qiraatu ibnu kathir kooku ci qura qura qiraatul sab'a la bokk qiraatu sab'a la bokk ibnu kathir moo ngi naafi ak yooyu ci sab'a la ñu bokk kon nag arabiya gu wóor la qatlu awlaadahum shurakaihim lu mel noonu ibnu xiraaitu ibnu amir laa wax de dama jum ibnu amir ci sab ala bokk su ko defee mooy faslu mudaafin maa nasaba mafoolan ni ki loolu aw zarfan wala zaraf ni ki farish nii bi xayrin laa akoonan wa midxati ka naaxiti yowman saxratin bi asili naaxiti mudaaf la shibhi fiilin ndax ismu faayil la ka naaxiti saxratin nee na bu tagg wi ma la tagg na nga ma may alal dëgg waay bu ma nekk na ka naaxiti saxratin ni ki ku doon yet aw xeer bi asili nag ci ngor ka yow man asil maanaam yutlaqu ala richati allati yuqla'u biha al faaqiya dégg nga ka naaxiti saxratin yow man saraf soosu aw zarfan ajis dagana la loolu walam yu ab duñu ay balit faslu yaminin taqle bu yamin ngiñ doxa diggan diggante mu daaf ak mu daa ilay du dëgg niki ku ni haza xulaamu wallahi zaydin haza xulaamu zaydin nga jële dox ngi ngiñ doxale fa faslu yamin wowu ji da fekk nañu nag fasal ga bi ajnabiyin ci jàmbur koo xam ne jotewul ak mu daaf ilayhi ma dara mu daaf ma dara du mafoolam du daraam wala fasalee naat mu daaf ak mu daaf ilayhi ñu doxale fa naat aw nidaa wala ñu doxale fa xarafu nidaa yooyu yett day fekk am na ittiraaran waaye lor way moo ko waral amma jàmbur bi ma ngi mel na kama xuttal kitaabu bi kaffi yawman yahudiyin yuqaaribu aw yazilu comme nee na ni ñu binde téere ci bi kaffi yahudiyin ci tenku ab yahud yu dégg nga yu xaaribu buy jageel mbind ma da koy rajal aw yasilu wala muy yaraaxal di tàqalee xaraf ya nee na yow man ji dox diggante kaffi ak yahudi te ku ci ne li si mu jaamit la jooxani du du amul amul jëf amul nasab ma fool kon yow man jàmbur la ci kaff ci ak yahudi loolu nag loolu woye ko andi wala ñu ata bin aw na aw bi naatin ni ki woyu muawiyatu ibnu abi sufyaan ba ñu ko kompaloo jëlal ko bis mook ali yàlla def ali yu moom ñu rey ko ibnu muljam al muradi yu moo ko rey aywa muawiya nag reppul yàlla def na ka ko jamoon jam na ko waaye deewul mu ne nag najawtu waqad balla al muraadiyu sayfahu min ibni abi cheikh al abatixi taalibi najawtu yàlla def na ma mucc waqad balla te tooyal na al muraadiyu mooy abdourahman ibnu muljam tooyal na sayfahu jaasiyam min ibni abi taalib ci doomu abi taalib ibnu mudaaf la abi aw maanaam abi mudaaf la taalib mudaafun ilayhi seen diggante mu doxale fa naat bi nga xam ne naatu abi taalib la abi taalib ma nga xam ne cheikhil abatixi moo nekk magum xuri màkk moo ne màg magu màgg kilifa la woon ci dëkku màkk ba cheikhil abatix naatu abi taalib mu jël naat ja doxale diggante mu daaf mu daaf yi lay nee na loolu loru woye tax ngay fasale mu daaf mu daaf ci ajnabi wala naat wala nida kama udifa lil yaksir ida lam yaku mu'tallan karamin waqada aw yaku kabnayni wa zaydina fadhi jamiuha lya bacdu fatxuha tudhi wa tudgamu lya fihi walwaawu wa in ma qabla waawin dumma faksirhu yahun wa alifan sallim wa fi lmaqsuuri an huzaylin inqilaabuha ya an xasab nee na iksir kasraal axira ma udifa mujug lépp lu ñuy laafal lil yaa i ñeel yaawu mutakallim muj ga dañu koy kasra ndax yaaw mutakallim ci kasra rek la man juddoo ida lam yakku ndegam nekkul mu'tallan di aji ràgg bu dul xarafu ràgg waaw bu dul xarafu ràgg ka raamin ni ki raamin ji firi aji sànni nga xam ne raami yaab ca mujjoon dégg nga wa qada wala muy maqsu raami bu dee manquus ni ki raami ak qaadin yooyu boom waxuju yooyu wala muy maqsuur alif mi nga xam ne du nangu xaraka mukk ni ki xada wala asa wala leneen a bu dee loolu la aw yekk wala mu nekk doon tasniya ni ki ibnay ni ñaari doom nga bëgg ni sama ñaari doom ya nga ni ibnayya wala zaydina di jam mudakkari salim ni ki nga ni zaydina wala wal muqiimi salaati fadi yii ma la limal manquus bi ak ak ak maqsuur bi ak tasniya bi ak jamu bi fadi yii yant ñoom jamiuha seen mboole al yaa u yaa uxtusatuha ak fataam uxtusiya roy nañu ko baadu gannaaw ga ñu ne ñu ni cey xalaas moom ma noo ngi doon wax ak moom ci mujj mu daaf mi ah moom mu fab daaneel daaneelal nunu ca yaaja ah dafa ni woon mujjug mu daaf dañu koy kasra faw bu mu ni féeg nekkul mu daaf ma nekkul mu'tal wala maqsuur wala tasniya wala jam fas yi yii nu defoon dana nu defoon danaan yii de moom seen mujj moom duñu ko kasara nangam mu wàcc fa loola ni yii yaaga dañu koy fataa ñu ni kon wax ji fi mu départ bokkut ak fi mu daanu xanaa ñu ni waa aha kay ndaxam ndax ba mu nee wattu daxamul yaa fii dañuy liddaxaam yaa ci yaaw mutakallim ba te dañuy fataa yaaw mutakallim waaye dañ cey dañ cey liddaxaam yaa ja nu ne ah kon dafa bëgg ni fas yii seen yaa day sukkoon ñoom seen mujj day sukkoon la wax ndaxte bu sukkoonul kenn du ko mën liddaxaam ci mu daxam moom toujours sukkoon lay doon mu daxam fii fokk mutaharrik lay doon ah ba mu nee yii ñoom seen mujj yaa ja si yaa ja ca mujj dañu koy kile bu fekkee yaa ca mujj ñu ne waaw ah man xaws de yaa ca mujj ni ki raam yi dégg nga tës ni yaatam yaa mën na ca mujj ci nasab wala jar du dëgg zaydina jam ot noonu bu dee alif nag kooka moom moo tax mu ne wa alifan sallim bu dee alif bàyyi ko noonu nga ni fataaya ak asaaya alif kenn du ko kasar bu ñu ko soppi yaa itam ci loxo jumhóori arab dana ci wax nag loxo husayl de waaye jumhóori arab ñoom alif noonu lañ koy bàyyi asaaya ak fataaya la ñuy wax ba maqsoor yi jeex mu ne su ko defee ba mu ne wa tudxamul yaa danañu li dixaam yaa fii ci yaw mutakallim bi ah ñu ni ah waaw kon dikk na nag kon lanu doon wax naan fi mu déparé wax ji bokkut ak fi mu ko daaneel faf na ko ëmb ci li mu ni yaa googu nga xam ne moo doon mujju baat yooyu te mu'tal bi mu wax léegi kon ba mu ne dañu koy li dañu koy li daxaam bu fekkee yàlla xam nañu ni dafa jublu ni kon axira maa yu daafu bu dee mu'tal kon day sukkoon ni ki raamin du dëgg ak xadaa ak yooyu kon kon xam nañu ni kon loolu mooy li mu war a daaneele wax ji ndax su dul woon ni dafa jublu ni des koy sukkoon du ni dañu koy li daxaam ca yaaja lu ñu sukkoonul kenn mënu ko li daxaam wa in ma ñu ni ko nag waaw xanaa loolu bu dee ci tës ni yëgeeg jamu gi xanaa bu fekkee tangi nasab la mbaa tangi jar ndax boobu la yaa di nekk ci tës ni ya wala jamu muzakkar salim tangi nasab lay am yaa amma bu dee tangi rafa kee alif lay am kee waaw lay am mu ni nag kon wa in ma qabla waawin dumma faksirhu yahun bu fekkee dañoo dàmm la jëkk waaga soppil dàmm ga kasar su ko defee yahun daal di yomb xalbul waawi yaa an waaw waaw wu sukkoon bu ko kas dàmm kasara dawloo mu daal di neex a soppi waaw doo mën a wax zay doo ya ah waaw yi mënoo ko soppi yaa feeg dàmm ngi fi mënoo ni say zay duy ya waaye kon nga ni zay diya ci waxtu rafa jaa zaydiya maanaam zaydoona yu ñu laafal dammil mutakallim nga bëgg ko li daxaame nag moo tax waaw moom feeg dàmma nga fa kenn mënu ko soppi yaa moo ko jiitu feeg mu ngi juddoo ci dàmm waaye kon bu dàmm gi soo ko dammee def ko kasara yaa gi dootu am doole yi bañ waaw wi dootu am doole yi bañ li annahu sakkana baada kasratin nga ni zaydiya wa tudxamul yaa fiihi wal waaw wa in ma qabla waawin dumma faksirhu boo ko defee yahun daal di yomb xalbu gi wa alifan sallim bu dee alif nag bàyyi ko mu mucc mu dellu bu dee alifu tës niye ba ca ba nga naan zaydaani nga ni jaa a zaydaaya kon bàyyi fa alif ga wala maqsuur ba xazaayaag asaaya bàyyi fa alif ga wa alifan sallim bu dee alif moom bu ko laaf ko ci yaw mutakallim bu mu tax nga di ko xalb mu ñu ni faw mu ne ah jumhuuri arab day moo tax may wax waaye wa fil maqsuuri an huzaylin inqilaabuhaa yaa an xasan bu dee bu dee tasniya alifam moom ci waxtu rafa salim salim bàyyi ko mu mucc waaye bu dee maqsoor baa ni ki asa ak xada kooku day inqilaabuha soppi ko moom alif ga yaa andi yaa ah comme na waaw defoon kooku xasanun lu rafet la an huzaylin mbir mu ñu koy nettalil ga qabila arab bu ñuy wax huzayl ñu am balaaxa te bare shuaraaw la ñu nag waaye seen luxa dafa wute naag luxatu quraysh tuuti ak i tamim ak yooyu ñoom bu ñuy wax asaaya asaya la ñuy wax aha fataaya fat